kon ñëw nañu tey fii Thiès 24 juin pour dossier faux médicament yi soo leen fàttalikoo ñaari yoon ñëw nañ fi mënuñu ko atte ndax kenn ku ci bopp di Mamadou Boury Diallo dañ ko may décret grâce présidentielle mu dem tey jii nag ñëw nañ ci la ñuy njëkk a wax ñun avocat yi moy décret grâce bobu Ce ci yoon te lu ci yoon dañ koy dindi sanni feulé lolu juge pénal même le président Macky Sall bi jël décret de grâce bobu wax na ci kanamu ñepp ni dañ donc li ñuy ñaan juge bi moy mu jël décret grâce ba sanni ko nous ñu Mamadou Diallo exactement comme su doon mi ngi fi te condamné ko nañ ko condamné dossier mafia xam nga luy mafia mooy li ñu dégg ci réew yi ay nit yoo xam ni faalewuñu état faalewuñu règlement euh, réew mi faalewuñu loi seen coobare la ñuy doxe booloo am doole di def ay ñaawteef di lor loolu moo am fii ci produit faux médicaments yi un milliard trois cent cinquante millions la ñu arrêté ci faux médicaments yi gagné nag le record du monde ci ñaawteef loolu Sénégal ko def mais ña cay loru baadool yi ndax médicament bu bon xam nga ni poson ngay lek ay baadoole ñoo ciy dee moo tax So nga pharmacien yi li ñu wax soo génnee ay maladie rénale fañ koy defee fa la ëppee soo déggee yeneen maladie muy cancer ñu soxla dialyse foofu lañ koy defee même enquête bi wane nañ ni ma yi defuñu seen liggéey ndax perquisitionné kër sax defuñu ko ndax ragal nañ fa dem fii tudd nañ fi ay tur ay turu kilifa diine anañu kenn nekku fi donc li muy mujje furaas daal di xëdeen dans un état de droit mëma du Wuri jàlloo bañ ko jàppee ci PV bi bind na nee na Bara Sylla moo ko wax ni ko nangul lépp danañ la fa jëlee est-ce que Mamadou Wuri Diallo jëlewuñu ko fa la mu wax moo am keroog Mamadou Wuri Diallo bañ koy jëlee njaareem oto bu rafet ak i seen xale yooyu loo leen di wax ay faaram moo taxaw ñu génne ko yóbbu ko lii moo am ci dossier bi. procureur nee na liñ daan Bara Sylla nañ ko wàññi jëlee ko sept ans yóbbu ko quatre ans man kontaan ma si loolu kontaan ma si pour ñaari motif premièrement Bara dafa defoon appel parce que lañ atte woon Thiès Diourbel àndu si demandé wul grâce dafa ne li ñu atte teguwul si yoon ñu ngi koy poursuivre poursuivre na dafa liggéey affaire pharmacie te waru ko liggéey dafa def contrebande c'est-à-dire fraude douanière dafa nekk dafa déggoo ak ay nit pour def ay ay délits muy association de malfaiteurs moom nee na yooyu ñu koy toppee yëpp defu si dara te ñun mi demee di ko plaider Diourbel aussi wane nañ ne si suñu xam-xam ak li ñu jàng loolu dara lu si dëgg

amna na keneen koo xam ne ni turam mi ngi si muy Ismaïla amna keneen koo xam ne turam mi ngi si woon muy Aziz mais Bara Sylla lañ focaliser tout simplement parce que moo dëkk Touba mais moi ci ma dis que c' est pas à des occasions comme ça qu'on fait le procès de Touba de ñu ngi wax si Touba moo def lii Touba pharma dëpp pharmacien yi bu ñu bëggee régler problème Touba xam nañ fu ñuy jaar nañ dem wax ak waa Touba nañ dem wax ak autorités yi mais diñ profité si benn cas rek pour bëgg a sànni xeer Touba Touba dëkk du état dans un état

mom ñu lañ koy mais may grâce demandé ko d'ailleurs mais keneen ko ñu may grâce dafa def andi problème de conscience ñi fi xam ngeen de conscience Fait procureur éthique ak équité motax mu ramener la peine à juste proportion c'est-à-dire ñu jëlé ko 7 ans quatre ans mais ñun yalla yalla dara erreur ba accord de ah, nañ ko gérer mais pas ci tribunal diko ko gérer ak par par A ou par B ñun soxlawuñu loolu li ñu bëgg moy ñu appliquer la loi